jaajëfal leen bu baax mbokki internet yi safoo teewlu info 2S TV daal di nag jaamu ci xibaar ñu wax ci ay kàddu yi nga xamante ne moom la maître Ciré door Ly nag daal di yëkkati mu bokk nag ci avocat yi nga xam ne ñoom ñooy layal Ousmane Sonko gannaaw ba ñu amalee nag procès en appel ñeelu soxla radiation Ousmane Sonko nag ci noonu kii di maître Ciré Clédor Ly nag daal dina addu ki ni démb nag ci juróom-ñetti waxtu ku ci ne nag la nga am loo xam ne war nga koo wax rek wax nga ko ni nag tey jii moom moo wutu juge bu Ziguinchor soxna te it joxoon ko te ne ko na attewaat mbir mi nee na kookee nag la mu xamle bokk na ci nag déglu na ñëpp waaye nag nee na dafay jël ñaari fan muy nag démb ak tey bu gannaaw subaa nag tombé le 14 décembre ci 9h ni nag li nga xam ne moom loolu la ko xelam may ak xalaatam nag dina wax dogal bi muy joxe moom nag maître Ciré Clédor Ly di joxe rendez-vous nag le 14 décembre foofee bu 9h jotee nee na nag lu munti dogal rek koo xam ne kontaanul nee na nag mujj état bi wala sax kii di président Ousmane Sonko am nga sañ-sañ nag delluwaat fa nga xam ne fi nga xam ne fala raay bi teeree fala mbaxana bi gën a kawee ni nag wante foofu du doon mbaxana rek day ànd ak tengaane que moom moo di ñëpp ñoo xam ne ñu ngi foofu ak ñu mënta doy te nga xam ne nag ñoom ñoo jiite kuréel ya fa nekk ñoom ñooy daje nee na nag chambre yëpp ñoom ñooy daje ngir rek ñu xool ndax ni ñu àttee teg nañ ko ci yoon wala teguñu ko ci yoon nee na bu tamit foofu dogal nañ bi tamit am na beneen pax boo xam ni état bu Sénégal mën na fa jaar waaye tam kii di Ousmane Sonko mën na fa jaar bu boobaa ñëpp ñoom ñooy daje cour suprême bi yëpp président chambre yi te bu boobaa nag ni nag ah, wax ji dootul dellu fenn nag ah, kerooga ah, lañu koy jeexal. di leen di jaajëfal bu baax te di leen di wax ngeen abonné woo ci suñu chaîne Info 2S TV ngeen di mën di am suñuy xibaar.